bisimilah rahmaani rahiim salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. <clears throat> mbokk yi ci yàlla ñu dellusiwaat ak yéen ci ndimbalu borom bi deux mille cinquante trois tollu ci rek leerlu yi mbokk yi doon sàkku ci <clears throat> yu bari yu ñuy def ci nit ñi buñ jógee màkk ak yu ko niru te teguwul fenn lu dul rek suñu mbokk jigéen ñi ñoom ñoo ko xëcc ba ak si foofu ak góor ñi leen ci jàppale nag jigéen kese mënul dara ci waxin ak ak lu ci mën a am rek eh, beneen mbokk mi ma ci dolli ni ma te seetlu na ni non seulement koo tàgguwul mu mer ñi ëpp ci nit ñi te mbokk yi ñi nga bokkal ñëpp ñëpp kenn ku ci ne mën nga faa dem mënoo ko mënoo ko sa côté ndey am na ñoo ci bokkal ñu bari ñi doon ay ndijaay ñi ay doomi ndey lañu ñi say tante lañu ay rakk yaay ñi sa mag yaay lañu ndijaay yi am na ñu la mag am ñoo mag eh, côté maam maam ci wàllu ndey mbokk yi sa côté baay ah? donte mook sa baay bokk ndey ak baay ah nu muy demee ñëpp ñëpp ñëpp doo mën dem ci ñoom ba atta téléphone boo ci duggan sax am na ñooy fàtte am ñu dul am seen numéro kon loolu problème la ñu ëpp ci ñoom boo leen tàgguwul ñu mer te duñ yem ci mer de waaye dinañ la ko àggee danget la ko ba boo lëggee yow di nga xam ne yow ñiy joxe leen cër subhanallah te ndeke boo ñëwee joxe bi ngay joxe doo doo ko tolloole ndax e, bi nga ñëwee ci e, soxna Fatou Gueye mu jox la cinq mille francs nga dem ci e, soxna jëtu jëng mu jox la mille francs boo ñëwee boo joxe ah ngayeen bi la joxoon cinq mille nag doo ko tolloole ak mboojeen bii la joxoon mille francs xoolal loolu maanaam nga xam ne kon def ngir yàlla mooy day daal di jeex foofu maanaam même boo tolloole woon kii kon ne nga jox ko kaala ngayeen bi joxe woon cinq xam ni mboojël bi mille franc la joxe sax man naam xolam du sedd moom kon fu ñuy mucce kon ñëwe ko rek jëlal sa ginnaaw gii rek bàyyi koog nit ñi seet ñoo xam ni te booy tàggoo bañ ñu jox la am na noo koy waxe ba mën nañ laa bañ a jox boo duggee ci tàggu ñëpp moom ah am na ko lu rus na nga ñëw tàggu ko te jox la dara moom moom rus na ko nee lool loolu ëpp naa def ëpp naa def wax dugg yàlla dem jaamu ji yàlla rek daal donte dafa am jaamu yàlla yaram gu ànd ak fere aj nag la aj moom dëgg la ibadatul badan la wal maal waaw alal la koy def alal ji nag laa ëppante ndax ci dëkk mag mën naa am ay fere moom du am solo du am solo ci bu ko tegee ci sariya waaw bu ko tegee ci sariya ndax ay nit dëkk na fii ci misaal ci senegal màggal Tuuba jot ñoom ñu fere ci loo xam ni waa ji jóge Gàmbi moom ferewu ko ci ki jóge Mauritanie ferewu ko ci loolu moom xam nga day am kon toujours buñ dee tënku ci sariya rek dinañu noppalu waaye nag dañ cee tënkuwul kon nag du ñu noppalu loolu rek moo fi ne waaw yàlla nangul ñi aju woon màkk ñëpp yàlla yàlla def nganale yooyu lañ cee feree lépp di ay yiw ci ak ay ay ay tuyaaba ña koy jëfandikoo ak ñañ koy jox njuumte yi na ko yàlla jéggal ñi ko seq lépp li toog mbokk mi nee na dafa seetlu xam naa dafa ne ci marché jamono yi tabaski la ma ko waxoon kenn ci mbokki waa taskir yi su ci lool dafa naa mooy suñ farlu ma ne nekk kolobaan ak yeneen mbokk yu mel noonu yu ñu seetlu ci jënd ak jaay daal dafa am xëtt sart yoo xam ne léeg-léeg borom place yi ñoo koy def léeg-léeg client yi ñoo koy def léeg koo xam ne du borom place du client waaye ab triant la warkat la bu ñëw ci fa ñuy jaay ndax client bi walla mu ndax borom place bi léegi nag daa am loo xam ne moom dañ ko tere ñaar ñi làng ku neer place di bu client bi ñëwee doonte client ki mu jëkk jot la moom client bi la toujours mu ñëw di jënd ba am lu la wax loola amuloo ko ñu ne ah, am nga naa nga ne ko déedéet mun xaar ma seet sa mbokk mi boo ko ne taxawal toggal xaar ma déedéet lislaam day bëgg rek nga bàyyi moom mu dem jëndal boppam ah man nga ko ni xaaral ma ñëw dem la nga ko doon jaaye nga ñëw joxe ko ko ndax waa ji da ngaa waxante moom nga ne ko sama client daal bu ñëwatee bu ma amul dàll wi mu bëgg yow nga am ko rek dama ñëw jël dàll bu mel noonu ci yow rek yow yow yow nel cel dama laa jël naa fi benn dàll rek su ko defee mu ñëw jox la dàll bi nga client bi jënd ko lam mu ko jënd moo xam manqué na moo xam manqué wul am na marché ci waxee bu baree rek gaa wàcce ko bu néewee gaa yi yokk ko client bi dem fay ko la ko war a fay wu ñëw yow it fay la li nga koy jaayee sa client am na defin wu rafet waaye nag eh, ñëpp dudul yam ci defin lu mel noonu moo tax fuqaa yi léegi di bañ eh, waa ji lim bëgg amoo ko nga ne ko xaaral nga dem eh, jaar ci kaw waa ji nga xam ci moom nga ko jënd sax waxaaleeg moom comme yéen bokk marché bi wala amoo fi place sax mu jaay la ko lu yomb nga ñëw jaay ko waa ji seer loolu gis nga boo ci duggee di nga dem ba ay xàq di la ci topp bunt la boo xam ne moom dañ koy tëjal nit ñi fii nag moom am na fi ñoo xam ne nee nañu dañuy ñëw ci Euh, xam nañ borom place yi waxante nañu ñoom loo jaay frigo bi mu ne ko trois cent mille laa koy jaay waaw ba dem ba ah jongo ba frigo laa bëggoon ban mark ah, am na fi de kaay kaay yóbbu ci place waa ji jaay ko ko quatre cent mille mu fay waa ji bindal ko rësi waaw su ko defee bu demee waa ji jox la sa cent mille léegi sariya dafa bëggoon. fuqaay dañoo bëggoon nga bàyyi nga ne ko nga ne ko awuma bu fekkee amul waaye nag ki ñëw mu amul place te bëgg di liggéey ah nit du ñëw mu ni ko nangam amul ginnaaw xam ne ne borom place ba am na te wax naag borom place ba waaye gis nga bunt la boo xam moom it buñ ci duggal dañ ñëw beneen yoon nga xam ne dañuy indi nag ay texte lu suñ wax yi li ne suñ xel ni nu koy teewlu waaye bu booba ay waxi fuqaay la ñuy indi ci diggante jël ak jaay dañ ko fàttewoon doon ci boros rek rawatina nag jamonoy feet jamonoy feet maanaam ci lay gën a ñaawee leen moom xam ngeen ni baaxul moom it eh, waa ji borom place bi génn na wala génnul benn waay ñëw di jënd loo xam ni wax dëgg yàlla la nga ko ko jaayee bénéfice ba bari lool nga dem jël ko ci benn waay waa ji dafa génn nga jaayal ko fa benn objet bu cher la ko jaayee bénéfice bu bari lool mu ñëw nga jox waa ji lan lam ko doon jaayee client yi xam nga ko bii client moom da nga cee dal rek dagg baatam loolu xam ngeen ni jaaduwul borom boobu moo moom moo moom kaañ woowee lam muy bari bari su ko neexee mu yëkkati ca nangam nag jox la ko te nee nañ ma loolu day am loolu fu mu tegu fu tegu ndax ki jënd si xamul li mu jënd lu muy jar jaral na ko te bëgg na ko mu fay le prix bu cher boobu xam nga ne waa am na ci bénéfice boo xam ne moom bii moom musu ko am nga dagg jox ko moom la mu koy jaay client yi en général ah mu yëg ak mu yëgul xam nga ni loola yow moom moo ko ndax borom place bi moom moo ko moom borom bi moo ko moom waaw ak yu bari yoo xam ay misaal la yuñ ci war a mën a joxe mbokk mi mu ni waaw na ngeen di dimbalante ci baax ak topp yàlla ak ragal yàlla te bu leen dimbalante ci safaanu mbaax ak ragal yàlla wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan xam nga bu fekkee dimbalante day jur noonu di jur bàkkaar yàlla tere ko waaye dimbalante ci ragal yàlla ak mbaax loolu yomb na yomb ndax bu fekkee ni liñ doon wax ci wàllu tàggoo ñu jox la boo ñëwee joxewaat bu fekkee ku ne jox la dix mille francs cinq mille francs vingt cinq mille tax nga mën a dem Makka ba am sab yóbbal ñu ni dañ lay dimbileey waaye ki joxe cinq mille moom wax dëgg yàlla boo ñëwoon yi joxe ko jox ko rek rek rek sam-sam xel ma mag ca cinq mille ya mën na ko wax ci béréb sax ndax bu gisee nga jox ko xëy ci joxula woon dara nga jox ko kurus walla nga jox ko lu ëpp la ko jox bu boobaa dimbalante ci ci ragal yàlla amatu fa mën naa dem ba jur nga mere ko ba wax ko ko mi ngi mel ni ndaw sul yii rek ndimbali wàkk la rek du dimbalante fenn ak li yenn yi du ñëpp nag waaye li yenn yi moo taxit jigéen ñu bari ñoo ci génn seen bopp ni ñu ko waxe woon bëkk démb wax ma ko ni jaxaran waaw ku leen lay la ñu bañ te duñ day li seeni doom lu rafet la woon ci njëlbéen ko moo gis nga ko ak bàyyele bàyyele moom kii ñi ma xam ci góor ñi ba léegi na ko sama baay sama maam doon defee lañ koy defe ñoom xanaa kay leen lenn moo yokk diw de dañ koo bàyyile faatu léegi nag na ko jëkkër ji jox ba yu bàyyi ba yu bàyyi juróomi téeméer buy bàyyi cinq mille bëy nag léegi dafa cher bëy dafa cher léegi bëyu baay gis naa ñu koy laaj juróom-ñaari junni am ñu koy laaj fukki junni maanaam sax am na ñuy laaj lu loolu am nañ sax ñoo xam ne duñu laaj dara yow yooy joxe rek am na ñoo xam ne vingt cinq mille lañ leen di jox waaw te góor it buy joxe ndawtal xaaru ca ñu ndawtal ko bañ yam waaye foog ñu tegal ko ci dara wala moom dana ko ñaxtu loolu gisaguma ko ci góor ñi wax dëgg yàlla waaw gis naa ci góor ñi nit xewle nga ndawtal ko nga xewle ndawtalu la muy xewlewaat nga ndawtal ko nga xewlewaat ndawtalu la ñun nii dañ koy dund ak suñuy moroom ndax la ngay jox waa ji moom da nga ko dimbalee ngir yàlla waaw boo xewlee fekk nag amu ko mënu ko ah amu ko mënu ko kon foofu moom góor yi ñoom ñoo fi ëpp bénéfice jigéen ñi donte donte góor ñi am na ci ñoo xam ne ñoom it dañoo mën seen boor gis naa ñuy deflante ci seen biir kii ñu ne goroom gaañu na nga dem yóbbu fa aw nag nga gaañule moom it mu indi aw nag njëgu nag wala aw nag ak yeneen ñu baree bari maa ngi gis am ñu ko def waaye ñooñu ma xam leen xam ni yàlla xam na ni ki ki jëkk joxe aw nag bi moroom mi xewlee bu moroom mi indiwul aw nag du ko wax du ko jàppe léegi pour moom diw moom diw moom da ko fàtte ak diw moom daal góor ñi dañoo noppalu ci wàllu gu mel noonu ala kulli xaalin wax dëgg yàlla faruloo góor ñi nag man li ma dund rek laay wax kon bu doon ñëw ci aay bi den ci joxe ay misaal yu bari ci lan mooy dimbalante ci dimbalante guy jur noonoo daal ah xam nga ki ñu ki ñu ndayale ñu ni bu jànq bi jële weer oo koy fóotul mooy mu nekk jigéenu wérul nga sa jànq ba day jël na weer aha mu tàmbalee jànnaxe tàmbalee dajale yàkkamtiwul mu am neuf mois mukk mukk mukk ndax tey mu dee ndax téeméer bu ñu ko joxoon kat ab junni la ca war a joxe ci gën a tuuti ndax joxoon nañ ko lekkum ndey sët day saan léeg-léeg bu tolloo fen ñu ñu koy fàttali ko fàttali te kat boo nee nday yu bari la ko wutal bi ñu demee ba xale bi am doom ñu woo ko ni ko diw fekk fàtte na ko fekku ci xat diw jaañ sa sa ba da yeewee ko mu ni xay wax nga ay de ñu waat ko ni a ah, yàlla kat def na xale bi dellu mu alhamdulilah tëyu ko bi mu koy wax xam nga loolu ëpp na loolu ëpp na ndekete benn mbokk ne na ma ah sëñ gay ma dolli la ci ndey yu bari yooyu dañuy defante buñ ñëwee ndey yi ndey ndey ci bëgg a am na loo xëy foog nga def ko ba am na ndey yoo xam ne sax dañuy am kersa lool ndax amuñu doole waaw te foog ñu def ba def lu ñu mënul loolu nag moom du dimbalante ci ragal yàlla dimbalante guy jur noonoo la ala kulli xaal waaw laa la joxan kat ba fekkee ne mënoo koo yokkit bu ko wàññi yooyu mooy yan waaw la ci tegu mbokk yi noo ngi ci bër bër gi internet ak daar yu bari dañuy bër am na ñoo xam ne ñoom dañuy tàmbali ndax fukki fan ak juróom la ñuy bër am ñoo xam ni weer wi lañuy ñuy bër weeru lëm ndax at mi yëpp xale yi duñ ci bër ci daara yi foofu la ñuy korite fa la defee lépp tabaski rek lañuy génn am weer ñëwaat waaye mbokk yi nga xëy ñoo yore euh, ñoo yore seen doom yi nekkoon ci internat yi nekkoon ci daara yi xale yi kenn mënu leen a téye benn béréb te amoo jafe-jafe xale yi nañuy nafar waaye bëgg lu neex sa doom ba nga bàyyi ko ak télé bi bàyyi ko ak tablette bi portable yi bàyyi ko muy dem géej fi mu toll nii am na xale yoo xam ni ñu ngi may woon ni diw dey ku jëkk ñëw ca daara ja dinañ ko indi ndax kenn mun ko teree dem géej xale bu ndaw bu ndaw bu tuuti kenn mun ko teree dem géej xam ni kon kooku doyal na xat xat man mii day sama kër gee am nañ fa sama sët yuñ fa indi day waaye tey ji bu leen seen yaay jëlal ma kontaan loo ndax xam naa ni ña nga fa ah, waxuma dara sax waaye kontaan bi ñuy nekk bu ñuy dox duñ dox ndànk la daw du ñu toog ñu ngi ci kër kër ja loolu seen loxo dugg ca nafar nag ak ku leen rey lañ yemale nga xam ni kon xale nii xool téye ci benn barab la nga bëgg a def nga def ko ci moom internat moo ci tane borom internat yi nañu ragal yàlla ñoom it njàng yii nii des na lu bari fokk nga sol sonn ci soo ko am résultat nañu ragal yàlla ci xale yi kon nu yem fii rek waxtu wi jot na wasalaamaaleykum wa rahmatullah